bi ñëpp doon xaar yegsi na Ligue des Champions format 2024 2025 muy format bi nga xamni 36 équipes lay doon yegsi na te match yu ñëk yi dinañ ko jëwante 16h45 match yu ñëk nak xamal ni moy Juventus bi dalal PSV Eindhoven ci biir dëkkam muy match bi njëkk bi ñuy jongante ci beneen wàll nag Young Boys de Berne dinañ dalal ñii di Aston Villa match yooyu ñooy am 16h45 bu 19h jotee danañ amal yeneen match 19 bu jotee nag ci lañ koy tëjee. Milan dina dalal Liverpool Bayern Munich dina dalal kii di Dinamo Zagreb Lille dina dem fekk ci Sporting bu Portugal ba nga xam ne fële Cristiano feeñee yooyu match ñooy am 19h fàtte tamit Real Madrid dina dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy Stuttgart club allemand bi nga xam ne dina dem fekk ji champion à titre bi ngir jéem a jëlee fa ab poñ Real bii nii nag mooy Real bi nga xam ne ñu ngi ciy xaar Bellingham ci match bi ak Aurélien Tchouameni muy a ci kanam dinañ ci xam dara waaye Ligue des bi xam leen ni mu demee ni 36 équipes yi ku ci nekk di nga jongante 8 match 8 match yooyu noonu day doon ñeent yoo xam ne da nga ñeent yi nga jëkk a nga dem fekk ji leen kon classement bi leer na tableau bi leer na ku nekk di xam ki ngay dajeel jotoon nañ koo tirage ba équipe bu ci nekk xam na ki muy dajeel donc li ci des mooy ñu xool kan mooy doon favori bi man nag quant maa ngi xaar City maa ngi xaar Real Madrid muy ultime favori yi nga xam ne ñoom laay xaar ci kaw a kaw peut-être dinaa tuddaale benn Arsenal tuddaale benn Liverpool muy équipe yu am doole yoo xam ne peut-être dinañ leen bàyyi xel Arsenal récurrence wala mine Ligue des champions bi nga xam ne na koo gën na màgg ci Arteta gën na fës gën na am doole ba ñëpp fi mu ne nii nangu nañ ni Arteta façon na équipe bii nga xam ni amoon na ay jafe-jafe fan yi dañu génn waaye nag loolu doyut buñ fàttalikoo Arsenal dina football match sam bu njëkk te kii di Martin Odegaard du ci bokk di capitaine wu Gunners yi match boobee nag Arteta dina conduire équipe boo xam ne moom la ñuy xaar mu fas yéene wane xar kanam gu dal ndax yàggul dara Arsenal dem na fekk ji kii di Tottenham ci derby du nord de London daal di koy gagné ci benn but à zéro Gabriel moo dugaloon bii bi loolee nag day doon lancement bu baax boo xam ni équipe bi day tax mu gën a jàpp confiance te 11 match mu ngi nii. Arsenal 3 buts kese lañ ci encaissé te daje nañ ceeg City daje nañ ceeg Aston Villa daje nañ ceeg équipe yu bari yoo xam ne tey jële de mënoon nañ leen a dugal mais Arsenal ñetti buts la ci encaissé. nga seetlu aussi attaque gu Arsenal dafa gën a màgg ndax da ngay seetlu ne kii di Kai Havertz mu ngi gën di yeewu kii di Martinelli et aussi tamit Bukayo Saka kenn demul mu des et aussi jéem nañoo apporter profondeur ci banc bi maanaam gën a yokk doole banc bi. ba jëli ki nga xam ne moom mooy Raheem Sterling fële ca Chelsea kon dafa nekk jour boo xam ne man personnellement nekkul jour bu may yaakaar trop mais nekk na jour boo xam ne ñëpp nangu nañ talent peut-être efficacité moom moo nekk jafe-jafe waaye su fekkoon ne nekk na ni jour bu efficace trop kon day bokk ci jour yi ñuy gën a tudd ci Europe wala jour yi dàq football ci Europe ndax football lu léegi statistique la rek. boo dugalul defoo ay paas yu bari daanaka kenn du la ci boole mais damay jël ki nga xam ne moom mooy barsa ndax wane na lu xel dal wane na équipe bu am xale lool équipe bu am doole équipe boo xam ne xale yi lu ñuy tuuti tuuti day nekk équipe boo xam ne. day wane loo xam ne saa su nekk match par match da ngay sentir ne équipe bi mu ngi gën a jàpp bloc bi mu ngi gën di jàpp aussi day nekk équipe boo xam ne tamit avantage bi ñu am mooy mën nañ di ko tourner ndànk-ndànk mais nag problème bi xaw a nekk ci Barça mooy li may faral di rek mooy profondeur banc bi trop surtout en attaque. day nekk jour yoo xam ne ñi nekk ci banc bi mënoo yaakaar trop trop te football dafa gudd à tout moment day am luy ñëw d'ailleurs Fermin Lépose bi nga xam ne waroon naa dellu si moom dafa blessé waat dafa defaat benn rechute boo xam mu toogaat absenté wu tuuti mais avec Hans Flick nga xam ne tey jëlee 4-3-3 wam bi commencé nekk benn règle d'or boo xam ne du ko changé équipe bi miin nañ ko xam na ko te profil yi mu soxla ñoo fi nekk facilement day doon système boo xam ne moom lay teg du nekk di serse de midi à 14 heures pour garaaw garaawul comme souvent ñi ko Guardiola voilà mais bañ ko ci ñamalé avec Chelsea final Ligue des champions ba légui wàññi na. léegi Barça bi day bok ci équipe yi nga xamni ne mën nañ leen tudd ci favori yi équipe bu melni Bayern Munich Bayern Munich kenn mënu ko ñàkk a tudd ci Ligue des champions C'est automatique quand tu parles de Ligue des champions da nga naan Bayern Munich peut-être Bayern yorna équipe am yorul équipe mais il s'est gagné la Ligue des champions il s'est gagné les matchs de la Ligue des champions dafa xam nu koy gagner facilement day assurer match yi nga xamni moy match yu ndaw yi jéem koo gagner sans sonn le reste nak match yi nga xamné ay match yu mag la ci biir négam fi di alliance Arena dalay écraser dalay ray facilement djema xol xool leneen donc doon na équipe bo xamné xamna lu ñuy gagné Ligue des champions. de l'autre côté Real Madrid dafa nek équipe bo xamné mom des fois dang koy gis muy def yo xamné du dal xel mais Ancelotti mom philosophie de jeu bi mu am droit droito bi fexé gagner le beau jeu moi je m'en fous hein, sama yoon nek ci. nañ amul philosophie de jeu bal du daw du jouer attaque placée phase de possession et doo sentir Real. mais à la dëgg moom nga koy jox ndax moom résultat bi la lay apporter c'est ce qu'il fait loolu lay def saa su nekk bien vrai que nag man ki nga xam ni man fan du Bose la man duma ko apprécier trop ci côté boobu noonu mais boo demee ba à fin ba bañ phase comptable ñu commencé compter lan nga am ci ay points lan match nga gañ voilà ainsi de suite. da ngay gis ni waa ji nii c'est un très grand. donc li ñu mën a jàpp ak Carleto mooy kii nii xam na nu muy gañee ay matcham. donc li ma mën a wax ba wax ko mooy bari na équipe yoo xam ne mën nañ leen a tudd comme favori damay jall ci ñi nga xam ni tey jile ñoom gis ni tay jile 8 premier yi nga xam ne ñoom ñooy qualifié 8 huitième de finale mënuma leen ci guiné wala japp na ni forcément dañ ci nekk damay tuddu Real Madrid Man City Bayern Munich Paris Saint-Germain Barça Liverpool gis na ci aussi Arsenal 8 huitième équipe bi kay complété mëna naa mise ci Atlético de Madrid ndax nekk na équipe bo xamni ni xaw nañoo yeesal seen équipe te nekk nañ aussi équipe boo xam ni compétition yi nga xam ne day métti day laaj énergie saay su nekk xam nañ ko miin nañ ko peut-être li leen xaw yàqal wala liy nekk jafe-jafe mooy comme ñëpp pratiquement format wu Ligue des champions bi ni mu ci ñëpp nga xam ne ci saison régulière lañ lay dugal léegi nag Atlético boobu noonu poule bi mu bokk aussi wala saison régulière bi équipe yi muy à domicile ak à l'extérieur da ngay gis ni match yu abordable la mën na aussi tudduma Bayer Leverkusen bi nga xam ne tey jii de ñëpp gis nañ saison bi mu def mais il faut savoir que ni man dama miser ci ñii nii ce n'est pas forcément que ni ñoom ñoo fi nar a qualifié en tant que huit première am na ñu ma tudd sànq ay outsiders yu sérieux lañ tudduma Leipzig tudduma Leverkusen tudduma Inter tudduma Dortmund. voilà y' a pas mal d' yoo xam ne tudd ma leen tey équipe yoo xam ne mën nañoo indi surprise mën nañoo wane ni carrément am na dara luñ mën a jaay d' ailleurs sax y' a la Juventus la xam ne tudd ma ko te aussi nekk nañ équipe boo xam ne muy ñëwaat ndànk-ndànk voilà. donc man huit yooyu laa gis kon jàpp naa ni ñoom ñoo dem directement ci huitième de finale yéen da ngeen may wax ñan ngeen gis ni ñoom ñooy dem seen point de vue. maintenant man samay pronostic bu ma koy def damay sóoraale ay facteurs yu bari yoo xam ni nit ñi duñ ko bàyyi xel mooy facteur yu ci mel ni blessure day ñëw baisse de forme day ñëw donc équipe bi lu mu am profondeur banc lu mu gën a mën a tourner équipe mooy ëpp ay sens te bu ñu fàtte ni format Ligue des champions bees bi dafa bëri dafa bëri ay match. et aussi nga boole ci match yi ngay joué en championnat 38 journée pour ñenn équipe yu ci ëpp nga war koo joué ak ay match coupe loolu il va falloir nga def sacrifice à moment donné te pour ngay jalonné loolu noonu day xaw a jafe et aussi blessure yi bu leen fàtte ni dafa bees ci joueurs yi te fan yi dafa bëri trop def naa constat boobu damay gis ni joueurs yi régulièrement dañuy blessé pour un rien du tout dañuy blessé kaaw Real Madrid mën nga koo jël kaaw Barça leen a loolu day nekk ay yoo xam ne dañ koy tenir en compte moo pronostic du dara lu dul performance récente moy performance yu bees yi nga xamni équipe bi ñu koy def aussi forme bi ak aussi statistique yi nga xamni équipe bi ñu koy wone ak base équipe bi effectif bi naka lañuy doxé doxee ci ngay basé wu pour le reste nak waaw da ngay baye muy dox petit à petit da ngay gis ni équipe bi mu ngi tourner mu ngi wacc mu ngi perte doole ainsi de suite parce que loolu dañ koy gis say su nek da ngay gis équipe bu tambali championnat championnat bu baax mais par la suite da ngay jéki jéki déséquilibre am blessure ñëw yeneen problème yoo xam ne équipe bi duñ ko expliquer en réalité lan moo ko waral mais day nekk problème yoo xam ne dañ koy garder ndax loolu la ñu war a xam équipe dina ñàkk a communiquer ci benn problème boo xam ne à l'interne day nekk duñ ko wax kenn loolu nag ñun dañuy def analyse naan waa lii la ainsi de suite alors que ñun xamuñu sax lu xew dañuy yaakaar ni sur le plan footballistique te par dañuy yaakaar ni c'est sur le plan footballistique te problème bi dépassé na loolu jéggi na dimension yooyu noonu c'est la ñu koy def dafa am ñuy basé wu yooyu ñuy joxe pour le reste nag ñun suñu pronostic joxe wuñ ko pour parieurs yi quoi pour muy leer waxuñu ko pour ñuy parier à ñu parier ci lii non non loin de là pour le simple plaisir du jeu bu ñu jàpp ni football war nañoo mën a def pronostic libre sans pour autant ñu jàll ci ay di wax ni naan kii mooy gagné alors que tegal ci kii non non c'est loin de là suñu yoon nekkul ci loolu voilà. encore une fois vidéo bi lii la woon wax leen ñu lan ngeen gis ci Ligue des champions bu ren bii nii ak ban taxawaay ngeen yaakaar ni équipe yi dinañ ko amal ak ba xam dina leen neex laa yem peace